voilà très bien ñu ngi suñu émission euh, cosaan euh, tey ñu dalal euh, kenn ci ay borom xam-xam yu nekk fii ci biir Thiès nekk fii ci quartier Mbour boobu kër Juma à Abuja alors ñu bàyyi ko rek moom Demba Touré mu nuyoo ak mbokki xarit yi seetaan ci actuthies.com. asalaamaaleykum di leen nuyu di leen ziare di ñaan ci yàlla rek tàmbali si bisimilah rahmaani rahim egg la ci alhamdulilahi rabbil alamin di nuyu képp koo xamante ni macha allah yaa ngi bàyyi di ñu bàyyi xel si site internet yi ñu bàyyi lépp si nga xamante ni daal ci wàllu YouTube bi wàllu Facebook bi ak wàllu TikTok bi fu ñu di seetaanee rek si site bi site bi. Euh, Actu Thiès. Actu Thiès voilà Actu Thiès su defee tey ñëw nañu fii si kër gi Mbour on surtout en face jumaa ji Thierno Abuja macha allah ñu seet si Serigne Demba Touré kooku moom ñëpp ko xam partout dans le monde Afrique Europe rawatina partout naan ñëpp ko xam ñu xamul tamit dëgg nañ ko waaw kooku la ñu wooyee Kanka Moussa borom jinne yi macha allah mooy Serigne Demba Touré kooku moom ku xamul dëgg na ko si wàllu seet si wàllu ñaan wante nag balaa dara d'abord di nuyu rek xamante ni kilifa diina ak kilifa aada ay kilifa cosaan rawatina tamit na tamit di nuyu daal sénégalais yëpp daal africain yëpp di leen nuyu fu ñu waaye dañu seetaane rek ñu leen di di leen ñaanal jàmm euh, di leen ñaanal aussi salaam rawatina suñu réew mu Sénégal di ñaan si nawet bi mu doon nawet bu am barke ak mu doon ndox bu sedd guy guy guy bu ànd ak jàmm salaam yàlla barkeel nawet bi si barke alquran karim si barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam si barke Serigne Babacar si suñu wajenu macha allah kon su defee nag di ñaanal ñëpp rek yàlla defal ñu jàmm ak faj aaju yi si saayir ak si baatin muccu ni lépp luy lore suñu borom daal defal defal ñu jàmm salaam kon su defee képp koo xamante ni rek yaa may suivre di ma bàyyi xel jamono bi nga xamante ni da bëgg ñu seetal la sa wàllu mbir ñu seetal la wala tamit nga bëgg ñu ñaanal la ñu ñaanal la loo xamante ni sa soxla rek mu jafe la loolu loolu loolu nga bëgg mu faj rek kon jëmm bi xam ngeen ko kooku mooy Serigne Demba Touré ñu ko xamul dëgg nañu wax naa leen ko macha allah si Mali. di partout dans le monde rawatina Ndakaaru Thiès Mbuur daal ñoo ma xam Petite Côte bi aussi kon su ko defee rek ñu daal di tàmbali waxtaan bi képp ku dégg suñu kàddu ñu lay nuyu jàmm rek ak xéwal saawaan baawaan rawatina Sénégal di ñaanal ñëpp rek nawet bu mu doon nawet bu am barke parce ndox bi bëri na fan yi ndox bi bëri na bëri na ndox moom ku ne xam ne ni jàmm la daal ndox moom jàmm la parce que moom su tawul nawet du mun a naat gàncax du mën a sax dugub du mën a ñor nit ñi sax du mën a wér kon taw dafa baax man suy taw damay kontaan su tawul nag bon xaw a yëngu su tawee damay kontaan parce dafa baax si doomu aadama kon yàlla doon ndox bu sedd guy guy guy yàlla barkeel nawet bi si barke alquran karim kon su defee di nuyu ñëpp di ziare ñëpp yéen ñi tamit di ñëw te seet ma fi aussi di leen ñaanal rek yàlla yokk leen yokk leen ba ngeen yëg ko macha allah site bi. gën a kawe kawe kawe ba lépp xëcc incha allahu rabbi si barke yonent ngi tamit waajal màggal Serigne Touba di ñaanal dem si jàmm salaam lépp luñ fi ñaan yal na ko yàlla xadim rasul nangu ko tasaare ko si Afrique rawatina suñu Sénégal di nuyu tamit suñu président Alaaji Macky Sall moom ñu koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla gën ko jàppale si li nga xamante ni si yéen bi jàppale ko si wàllu état bi ak wàllu nguur gi ak képp ku fi liggéey di la ñaanal yàlla jàppale leen ak bépp Sénégalais rek kilifa diine yi kilifa aada yi kilifa cosaan yi maa ngi leen a ñaanal ñoom it nga xamante nekk fii si bi yàlla yokk seen fan yokk yokk seen wér-gu-yaram seen mën-mën ñu wane ginnaaw tamit lakku ji yàlla xare leen àjjana macha allah yokk seen leer taas na seen barke bisimilah. am solo trop ci li nga xam ne introduction bi alors euh, sëñ Demba. Hmm. Euh, Kanku Moussa borom li bëgg nga wax moom xam-xam bi. Eh, fan nga ko jógee xam-xam bi ñu la am waaw loolu soo ma ci laajee dinaa sawar a wax comme que téema suñu première émission wante internet bi YouTube bi ñëpp xam ne Serigne Demba Touré parce que yàgg naa def émission nekkoon naa tamit aussi si rajo macha allah kon su defee xam nga xam suñu borom la. yàllaa koy jagleel si nit yàllaa koy def si nit xam-xam. dañ koy jàng dañ koy doon dañ koy gëstu yàlla sax dina ko def siiw sax fekk yoo xamoo man nag am naa ñaari ba ñett yi gëstu naa ko doon naa ko samay bàyyi parce que ñun suñu dëkki Mali la mooy fu ñuy wax Sadiola fu ñu gasee or bi foofu Sadiola boo ñuy wax kaay da ngay jënd côté droit ba ma ko aussi noonu la wante man biir kii dara laa juddoo laa màggee laa yaroo man ak samay mag sama papa ku mu nekkee Thiès ni rek am fi jabar am fi njaboot sama papa ni noonu la woon ñëw kii di la jël sama yaay foofu fan ñu judd macha allah moom tamit bu yàlla defee mu wane ginnaaw nag mbokk yi ñëpp mu ne xam-xam bii man mii maa nekkee caab te man nañ ko jox te man maa ko man maa ko yàlla parce que xam-xam en général ni bu ñu koy jox dañuy xool ku rafet xol ku laab biir ñu jox ko parce que borom xam-xam su soxoree rek daf safara bonee def safaan soo iñaanee def safaan ñu ne nag yow xool nañ yaa nekk caat te aussi yaa gën a daal nekk ñi nga xamante ni ku am xol bu rafet bi yow lañ koy jox man en 2002 boobu maa ngi fi Thiès sama nijaay fii boobu ñetti petaaw laa doon ñetti ñett yi ñett yooyu petaaw suuf la xam nga suuf am xor am ndox am si géej am si jaan man nag boobu pétaw suuf laa yoroon benn maam moom ko joxoon xam dama foofu di leen seet ñoom ñetti pétaw yi maa suuf mu ne dina am looy bu la feeñee bu ragal te jàpp di wir léeg-léeg sax du ma nelaw damay wir di ba quatre heures su fekkee tuuti bon mu ne ma soo continuer si loolu di nga am lu la feeñu bu ragal lu lay feeñu noonu ay mbir la àndandoo la wante bu ragal te effectivement noonu la demee ma nekk ci nekk ci nekk ci fi mu doon nëbbutu fi mu doon nëbbutu ba macha allah daal ñëpp xam na ci laa jóge fi dem bari mi premier bañ tamit yàlla def foofu tamit warso bi gën a tàkk wallu problème ku am problème suuf nga am teere ñu xëccoo nga am teere ñu bokk nangu loolu macha allah bu ci yàlla àndee su ma la defalee ñaan day faju wala nga yor équipe football nga bëgg équipe bii mu am ndam su ma la ñaanalee dinañ génn man loolu côté boobu yàlla may na ma ci ak wàllu li nga xamante ni ku bugg borom kër ku bëgg tamit tukki wala nga tukki munoo am dara am nañu tukki duñu am dara ndax la su yoon bi su fekkee da nga dem leerul xooloo ko visa yomb la nga dem kon mun nga nekk fay ati at doo am liggéey parce que léeg nit cat kes da koy um cat kese da koy um bët bët tey day xool garab bi garab bi jékki-jékki wow lammiñ day xool garab garab yi jékki-jékki waxuma la jëmmi doomu aadama cat moo gën a garaaw si lu ne si àdduna ak bët léegi su defee bu dee côté cat suñ la ci ñaanalee incha allah rabbi yàlla dina la ci may li nga bu dee bët tamit buñ la ci am na gàllaajam am am na duñ takk téere buñ yaa xam ñu defal la nga sang yaa xam ñu wirdal yaa xam ñu jox la nga suur yaa xam ñu jox la nga tax moom su amee wala lammiñ doomu aadama tu ko mënul dara ñu seen bët dafa aay lu ñu xool mu am jafe-jafe ñu seen làmmiñ balaa la lu ñu ñaan mu am parce que ñaan bind bi ci la bokk suuf bi ci la bokk wante ñaan lu ci ëpp solo solo solo mooy xol bi mu laab làmmiñ bi mu am ijaaba bu amee ijaaba même boo joxoon nit mu sang mu takk boo ko ñaanalee yàlla ne amin rek day am ñu bari xamuñu loolu xëy na nga bind jox day mottali yéene bi nga jox ko sunguf day mottali yéene bi nga bind téere nga jox ko mu takk day métti la yéene bi wante lépp lu ci ëpp solo xol bi d'abord laa sell rafet ànd ak yéene parce que looy def ànd ci yéene baaxu matal yéene toujours dafa war a bu rafet yéene bu baax su defee lamine bi su amee ijaab boo ñaanee rek borom moom yàlla da ci àndu mu àndu kon ñaan yàlla suñu borom moo ko santaani loolu dafa bokk sa dund doomu aadama kuy dund ku ne dañ lay ñaanal boo génnee àdduna dañ lay ñaanal na doon nag ñaan bu baax ñaan bi xamante ne lay muccal ci lu bon da lay muccal ci luy lore wala da lay lu baax ñun ñaan boobu la ñu xam ñun kanta pour euh, def bon wala wax nit lu bon wala daal fekkal nit lu bon ñun xamuñu ñaan boobu parce que fekkoon ko suñu parent te jàngaluñu loolu te aussi doonuñu loolu bu dee ñaan bu baax nga soxla yaa xam ñii dañuy bëggante nit tey ngeen dem bu borom bi neex loolu jékki-jékki waa ji découragé bàyyi wala mu jékki découragé bàyyi su defee la kii dañ liggéey kii dañ leen dëddale loolu noonu li ma la sànq rek àndandoo kese rek dañuy ñàkk juboo rek ñu féewal xam nga rab ak rawaan bokkul doo deux différences. lan moo leen wutale rab ak rawaan. rawaan mooy moom la ñuy wax étoile su mu juumul boo taxawee ni takk ndeer bu lay jiitu ne moom mooy raxwaan moom na yàlla moo ñaan ak doomu aadama. boo jógee mu jóg boo tëddee mu jóg rab nag su la mu nga naan mbirum jinne su la neexee nga naan mbirum seetaane moom nag parce que en général day féewale day yàq day baare comme defaa am dëgg nit ñu nekk musulman ñu ko rabu ceddo su defee borom moom des fois dina bëgg julli sax rab bi tere ko julli xam nga fajar ngelaw bi daw na diggante cinq du matin ñu séddale wërsëg yi am ci lañ jóg mais malaayka teg wërsëg ci lañ jóg wër boobu yow mi su fekkee ngelaw bi ñëw na ñooy ñëw nga xëj sa mbàjj bi nga hmm, nga tëdd nelaw ngelaw bu neex ñëw bu la mënee daal doo jóg doo julli sa fajar kon boobu seetaan dugg na la ñoom lu ñu fekk ngay def moom lañu bind bu ñu fekkee ngay julli bu ñu fekkee ngay nelaw lu mu moom lañu su defee rab nag rab en général li ma la wax rek rab dina fekk ñu war la na si place wala nga nekk si place mu tëral laa toog foofu day rëb la nga dem doo xam sax lu yóbbu kii dañ ko dëddale kii dañ ko liggéey fekkee du loolu te fekk rab bi moo ko def rab day dugg si kër parce que kër gi boo gis am na rab kër gi boo gis mais kër bu bees mooy kër bu màgget day am rab day am àndandoo bi su defee boobu fekkee nekkul bu baax da nga gis am sa njaboot duñ a am place nga am sa njaboot mën a am wërsëg nga am sa njaboot duñ la jënd dara mu ba ci wu borom gi sans dépense du la yomb ñu naan kii dafa liggéey de wala diw nii wala diw naa fekk nag rab bi moo koy rab dafa doy waar rab moom buy defar bariwul raxwaan moo baax raxwaan nag. ñii seen rawaan ndox la ñii suuf ñii ngelaw ñii safara loolu tamit dafa am différence encore tamit su ko rawaanee dafa am différence yu bëri na xamul loolu dafa am ay différence su defee eh, côté boobu moom su la dalee da ngay sangatu suñu borom moom mun na toog ay ati at ay weer bu dee ngoro bi la woon ngoro bi du sotti bu dee sëy bi moo amoon pare ñu xuloo guddee bëccëg tamit du sotti loolu day fekk nag rab bi moo jaxas seen diggante da leen di merloo du ngeen déggoo si benn kàddu bu dee bu mu xoolee boromam jël turam santam ak atam léeg-léeg ma laaj tur yaam ak parce que ñi dañuy bokkal seen papa rawaan ñi dañuy bokkal seen yaay rawaan loolu tamit boo ko xamee boo ñaanalee boromam day gaaw a faju su fekkee comme wala bu fekkee boromam rab bi moo ko sonal foo ma seet ma wax su ma gisee nag ba pare ma a ko ah, diw man de lii ak lii laa gis yow moom bu jaralee mu intéressé ko mu bëgg ñu waxtaan ci loolu ñu dimbali ko. ñaan ci yàlla waslu ci ak yàlla bu ci àndee aajo bi parce que ñaan moom yàlla mooy nangu waa ah. yàlla bu nangu rek incha allah léppay daal di baax kon rab dañ koy dindi cat dañ koy dindi tijjeeku rek lay ñaanal nga tijjeeku waaw loolu yëpp dafa bokk si mbiru si cadre suñu liggéey te aussi yàlla may nañ ci macha allah ñu ngi am ndam ñu dimbal ay nit waaw macha allah kon moom. lu am solo daal vraiment. borom moom bu soxla rek amul su wootee nag rek. ñu seetal ko bu ñu juboo pare. ñaanal ko su bëggee ñaan tamit aussi. parce na de sarax kese kese mën na dindal seen aaju na leen dindal seetaan sarax kese. waaw man moom sama côté moom loolu sama sarax kese rek. balu fa tamit su ma ko defee jaar mu bëgg mu sotti yaa xam nga bëgg ñu fal yaa xam nga fal nga bëgg garaade yaa xam nga bëgg tukki mu jafe yaa xam mbirum doom nga doon am amatu wala mu am yu demee noonu yëpp macha allah daal alhamdulilah. Mhm. alors euh, très mhm. mhm. parce que côté mbirum doom xam nga yàllaa koy joxe yàllaa koy maye wante nit buy sëy day am yaakaar bu amee soxna amoon moom njaboot ndax su amee moom njaboot kon ko musulman la julli la da yokk xeet Muhammad sallallahu alayhi moo tax ñu takk jabar boo amee njaboot. ñu ko xeet Muhammad ba yokk jaamu yàlla parce que jaamu yàlla la bon nag dañuy tooñ sama mbokk jigéen nii da nga gis góor bi xamante ni moom si problème ndoxam moo am jafe-jafe demul hôpital xoolul dara parce que wala ñaan yooyu am na muy faible wala nu muy wala ndoxam am na muy mel kon ndaw si boo nekkoon moom téeméeri at du mos ëmb su defee ñu naan jigéen kii moo mënul ëmb jigéen kii moo jaasir fekk du ci jigéen bi moo tax loolu su amee ñoom ñaan ngeen sëy yenn at yi ku jigéen ki dafa war a xool boppam ku góor ki dafa xool boppam ba xam kan la moo am problème bi ak kan moo am problème bi su defee nag après doo ko xam ban la ban ban la kii erreur bi nekk su dee ko góor ki nga xam bon su dee aussi ku jigéen ki nga xam de léeg-léeg gis jigéen bi mooy faju faju faju bu sonn góor bi nangu sax faj mais ah non yaa nangul am doom yaa amul am doom bu dee ku fekkee deful dara kay comme lu ñu def ñoom jigéen ñi pour bañ am doom wax yooyu bu dee borom moom defu ko moom carrément rab bi téyewu ko. yàlla tudd ah war na am war na am doom su góor gi tamit aussi su fekkee ndox bi jaarul yoon moom du mos am doom foo ndox bi jaarul parce que loolu mu ëpp importance voilà. très bien Kankou Moussa hmm. euh, sangat. Hmm. sànq wax sa doole. Hmm. sangat sangat ak kan moo war a sangat ak nan la ñuy sangatoo. kan moo war a sangatu muy kuy wut soxlam soxla mënul faju kan moo war a sangatu muy ko amoon amatul. kan moo war a sangatu muy ku dara du ko jot kan mu war a sangatu ki nga xamante ni daal yow daal lu la dig doo ko jot lu la dig daal ba nga dundee yaakaar mu tas boobu moo en général bii la Lamine moo koy def <laughs> bi daal waaw ñaari moom mooy tax ñu dig la tey dinaa def li mu fausse le rendez mm-hmm. dinaa kii ni mu fausse le rendez-vous mm-hmm. kon daal demee noonu nga ne man daal vraiment li mu dig rek dama ko jot lu ma lu ma yaakaar mu tas loolu moo koy def kon su ko defee euh, su fekkee kooku su ñëwee dañ koy defal ay sangat te balaa sangat yi ma la wax man maa maa joxe ñaan foo mu xool d'abord ba pare mu xam mu xam loolu xam na loolu man man dama tëb rek jox ni garab déedéet foo mu xool lan moo ko téye bu dee sangat la war a def mu sangu bu dee sarax ma génn ko sarax bu dee tamit wirtu ma wirtu bu dee tamit cuuraay ma jox ko mu suuru mm-hmm. waaw parce que man dama tëb rek jox ni garab tànk xoolu foo mu xool d'abord Mm-hmm. parce que loolu mooy yoon quoi. loolu mooy yoon mm-hmm. alors très bien xool yi am na mm-hmm. ñu ñu xam. ñu saxaar ci alxuraan wala boog euh, seet ci pertaaw. wala comme ko waxee sànq ci ndox suuf. Euh, Kanku Moussa. fan lay seetee. Kanku Moussa mën na la xool saabar la macha allah mën na mën nga tàllal sa loxo ma wax la loolu yàlla may na mën mën nañ tase fii léegi rek ma xool rek ma gis xam lépp ma xam lépp loolu yàlla may yàlla la daal sant yàlla pertaaw mën naa ci xool. bii seet bambara la bi lay tomb bii mun naa ci seet mm-hmm. mun naa fanaan def la sikaar mm-hmm. mun naa seetee ndox mm-hmm. gisa ba ci reen bi nga gis nii bii est-ce que xam nga <laughs> xamante ne ku ñu liggéey xam ne suñu liggéeyee njëbar la liggéey la def liggéey bon demee noonu est-ce que est-ce que yow xam nga noo koy sentir liggéey mu nekk si yow xam nga kay gisa ba tëddee guddi sa gént day jaxasoo sa gént du jaar yoon de sa gént su jaar yoon nag nga xam yow kat man ni gars yi yaa nga sama kaw yaram bi diis ngay tayal ngay nakkari deret léegi bii dafa mu nu koy defee nga def ko ci suwa ndox yaa xam nga am téeméeri doom nga am fukki doom macha allah nga am ñeenti jabar macha allah ñu sangu ci buñ ci sangoo bu ci des dañu si kër gi fi nga dëkk sooba yàlla booba bu liggéey bu nekk si kër gi wala rab day dal bu doon famille bu jubóowul day jubóo bu doon yow mi yaa ma liggéey téeméer at day dañ te aussi borom moom su amul sens bu liggéey bu si dañoo si yow day këpp si moom kon moom moo ko def boppam parce que moom moo def mu warul def waaw boo ko defee ma ne la képp ku ne kenn mënul ma dara kooku daa xamul lu muy wax kuy mënul dara amul xanaa nga muslu nga léemu nga sa ñëpp lay mënal dara ba ci man mi toog ak keneen kuy mënul dara kooku xanaa nga bañ a judd képp ku judd mënal na la dara mooy si saayir mooy si baatin kon nit day def lu baax rek wax lu baax yàlla jàppale la am xol bu rafet lii moom boo ko sangoo lii nga jël moom bu nekkoon su tamit aussi day génn su fekkoon fay bu jubawul noonu la comme soxla boo soxla moom macha allah. wala ci ci ay kuréel ci làmb boobaa su ma ko tooyalee pare. xam nga instant dafa dëgër. dafa dëgër kii gis nga dëgër nii. su ma ko tooyalee sama baaraam sax mun naa def ni mu xar. su xaree dama ci am morceau ma ci soxla am ni ma ko defaree. nga takk ko sa ndigg. Mm-hmm. boo takkee si ndigg même su la sent sant billaahi wallaahi taala des xam nga corte en général bu ñu ko sant bu dañu bambari dañuy jël muy affaire boobu di def gunóor bu ngand boobu gis boo ko fekkee muy yuuxu di di wut siiw ñu hmm. la sax mais sa kii daal càmmoñ bu góos nga hmm. fekkee ba dóor su daanoo rek hmm. fini parce que léegi da nga ko mu am bopp wala mu am xam-xam wala mu am gàllaay affaire bi du ko ñemee day daw léegi su tasee ko amul dara da koy dóor léegi nag bii soo amee nga takk ko wala nga sang côté yooyu yëpp yàlla mën na la ci mucc parce que malaaka ñaanlu sangatu saraxe yàlla moo ko déglu sababu wante na lépp yàlla mooy ànd yàlla lu mu ànd rek macha allah lu mu àndul nag vraiment man xamul dara kon su ci àndee aaju day faju bu nekkoon si day génn ci kattan suñu borom ak baaxaayam su dee bii bii bii wax fuuf fuuf bii même di nga gis ni jékki-jékki rek daanu fat daanu fat am nu ko defee soo defee ni bu fekkee nag rëppul bu ne issue rek même bu doon seetaan moo ko jàpp pare na ci. waaw léegi nag da nga koy def si ndox am nu ko ci def bu dee ko bugg a xaalis dafa nu koy defee nga sëngu bu dee ko ragal seetaan dafa am nu koy defee nga sëngu bu dee ko xamante ne fu umu am dara dafa am nu koy nga sëngu bu dee nag xamante ne tamit loo yor du toog dafa am nu koy defee nga raxasoo am lu ñuy wax euh, waasintuuru dama ko fàtte mu ngi ci biir waasintuuru ni ngi naan xam nga. Washington ni ko taw mooy yii di prier. jaan boobu jaan boobu di dugg si suuf. Mm-hmm. day gas dugg si suuf. Mm-hmm. te yooyu lañ koy boole ba nga xamante ni mënul am dara mun nga koy def ni di ko raayal sa loxo waaw mm-hmm. bii côté boobu lay jëm bon bu dee bii comme ni nga wax nga nekk si place wala nga nekk si bërëb liggéey wala nga nekk fenn rek nga bugg daal yow nga gën a jóg ci kaw. ba ci comme yéen ni ngeen liggéey nii sax nga bëgg site bi gën dox gën a gaa yi xam ne ni ma lay seetaan am ni ma ko defal am faxaay du tur nga def ko sango def ko ci leket leket bu bees xam leket day law leket lawtal la boo ci defee nga sangoo ko dimanche guddi nga koy defar lundi fajar nga sangoo soo ko defee nga xool bu dee nga bëgg kawe bëgg su liggéey bi dox te bëgg nit ñi jëlee xëcc macha allah noo xam nga garabu xëy garabu xëy même malo àll yi sax yóbbuñu ko. nga gis maa ngi ñëw di ci diisoo ci garab di ci diisoo nii. xarab dara ñëw. ndax lan ngeenal bu mu àndal ak barke bu mu àndal. bii même dañ koy suuroo sax pour wàllu seetaan ak liggéey. bii ngay gis ni bii man xëy. bii moom su ko tarab kese lay dox rab. rab waaw yaa xam ne dañuy daanu di yuuxu xam di daw di génn kër gi. moom borom moom bu sangoo. Mm-hmm. am nañ ko defee tamit def ko ci morceau bu am lu sul mhm. ko yàlla dina ko dimbali mu am jàmm bu dee côté tamit moo ko tere am doom sax incha allah bu si yàlla mhm. bii nii moom la ñuy wax wasu wasoore bile wen dañ ko mélangé ku bëgg bàyyir parce que ñu tamit sa amul bàyyir tamit amul sens mhm. yaa xam bàyyir boo song na yaa xam bàyyir pour ubbeeku wërsëg yaa xam bàyyir pour mbooloo yaa xam bàyyir pour place yaa xam bàyyir pour dayar daraje lépp bi ci yooyu lay dox. la hmm. xamante ni yow daal carrément daal bu nga daal nit ñi daal nga nga saf leen daal nga neex leen loo wax mu neex leen. Hmm. bii ci yooyu lay dox. très bien waaw bi xamante ni aussi mu bugg daal bu dee ko góor mu bugg jigéen ñi topp ko topp ko ñu eh, daa takk bàyyi hmm. bii ci lay dox mooy góor mooy jigéen. waaw bi côté boobu lay dox bon su dee bii bi ci wàllu cuuraay la. liggéey bu mu muntu doon bu mu bu ñuul bi la ñu baatim la ñu def la lu mu bi doon suuroo même soo dul nelaw sax boo suuroo nga nelaw bu doyal boo ko suuroo nga nelaw bu bu dee tamit comme lu ma la sant rek nga xamante ni nit guddi yi wala demee noonu boo ko laalee moom bi même boo ko suuroo sa xal sax ku seetul du fi toog ku seetul lu mm-hmm. koy xeet di dox voilà. Mm-hmm. lii moom ci yow lay dox. su defee côté côté côté. waaw parce que def naa waaw yooyu yi yi la yi su defee bii xam nga gisoo fooy bi lu mu mel. Mm-hmm. macha allah mu yànja na mm-hmm. rëy na mm-hmm. bi da nga koy dokkanteku nga def ko si suuf mat cinq litres wala quatre litres nga bàyyi ko foofu pendant deux heures de temps boo xoolee ba nga xam ne bind yëpp dañ ne day day yëpp day évangile nga daal di xaaj ko ci ñaari suuf comme neuf cent francs nga def si benn suuf bi neuf pouces bi bu am xaalis bi. Mm-hmm. boobu pour wàllu ubbeeku la wàllu wërsëg la. suba ji nga koy sangu bu am pouce bi ngoon nga koy sangu kon lu ma la sang lii. lii liggéey. laaj ak bët. du la dem rek. lu teg bët teg tamit dara. dara. xam nga te man de wax naa day tegu dara rek. Mm-hmm. mu yàqu ba ci ba ci garab yi mm-hmm. bu koy génne dama ko léemu de mm-hmm. parce que boo gis am na lu mu àndal yéen ñi toog am na lu yàlla may man mi am lu mu yàlla ko balaa ma ko génne dama ko su ne su bu ci ñu jàkkaarloo lam mi la bëtam garaaw rek garab yi toj moo comme tey nga ñëw nga ma ñaanal ma exemple mu ñaanal la nga gën ta na lu mu àndal mu gis nga yor mbuus wala mu gis nga yor su wala saak mu xam ne lii garab moo ci nekk su demee nga sangu dara jëriñ nga naan sëriñ bi xamul dara fekk lu sëriñ bi de fekk fi fi nga génne sax di ko yóbbu sax wala nga yàkkee sa yoon ngóom lépp dara loo góomul même bu nit bindoon lépp jox la soo góomul dara mm-hmm. ni bu sib tubbee sif jox la sax nga góom macha mm-hmm. allah li ma sànq rek mm-hmm. yàlla moo koy muttali ñaan lamin bu am ijaaba mooy lépp mun ngaa jox nit suwoo saafara mu sangu du ko jëriñ dara mun ngaa jox nit suwoo sungu du ko dara ndax lan xol bu sa làmmiñ amul ijaaba boo ñaanee yàlla du nangu euh, c'est important alors si yéen kan laay jëkkee si yow wala si kii. non njëkkal ci man <laughs> oh, sa gars daal. da ngay nas sa gars daal. <laughs> en tout cas mu ngi la mu ngi la nar de. voilà. sa at de naissance bi. waaw tur noonu tur bi mu garaw léegi quarante nga am. Mm-hmm. kile fila saba naani duuru wala wala segi di ko lantu. gis fii mu ne. wàllu bopp bu tëju si yow xam nga bopp bu bopp bu tëju muy bari calcul projet bari na xaalis day ñëw day toog wante day dem rek du toog comprendre mu ne nag aussi nit ku nga macha allah ku am sens nga ana sa kilifa bu góor bi sa borom mbir la woon borom bagage la woon allah xam nga loolu mu ne yaa ngi yor sa site internet bi wante boo tibboon suuf tey man Demba Touré maay wax de boo tibboon suuf tey nga jox nit mu sangu day am barke xam nga lu tax dafa am li ngay àndal dafa am nga àndal li nga àndal nag yow sa bopp côté wàllu xam-xam am na lu la ci yàlla sol sa bopp bi parce que yow loo gént loo génti ah boo toogee deux jours trois jours dañ pourtant li géntoon naa soo fekkee amul nga ne ma mu ne nag sa côté wàllu am-am si wàllu am-am dafa nekk wërsëg bu yaatu bu bu yaatu wante wërsëg bi dafa tasaaroo toogul benn place quoi parce que ndax lan da ngay def projet yu bëri du am aussi da ngay daw a daw ba découragé yow looy am day doon surprise yow comprendre looy am surprise lay doon si yow pour nit digg rek yéen <laughs> yow mbul de mm-hmm. non non baax mu ne Moussa wala Babacar ou bien Saliou côté famille kan moo tudd loolu ñoo la. Hmm. waaw am naa na ko am ne ko da nga koy jóg tisi tisi jigéen. kon na yow sa sarax sa xam nga hmm. sa sarax xam nga <laughs> musuñu la ko wax xam la sànq ñii seen rawaan ndox la ñii suuf ñii ngelaw ñii safara <laughs> yow tey soo doon am ñaari jabar hmm? ba am ñetti jabar mu ne yow sa sarax boo seetloo pare yow ki nga war a takk sa sarax dugub mbokk yaa ngi dégg wala mburu boobu moo gën fi mbir yaa xam côté sëy la yaa am côté wërsëg yaa am côté liggéey bi yow sarax loolu la parce que mën nga sa rawaan dafa nekk rawaanu ndox da taxawee ndox taxawee suuf moo tax génn ndox bu bëri bëri bëri ma la. waaw. Hmm, hmm. mu ne doom góor bu ndaw bi da tur kilifa. foofu laay bu seet bi dégg nga. seet bi seet bi wasaare. rek seet bi wasaare. mais seet bi wasaare quoi. mais c'est important en tout cas. kii na donc voilà xam naa gars yi si non gars yi gars yi dañuy fay de. gars yi moom dañuy fay moom. gars yi dañuy fay quoi. gars yi dañuy fay de. mais voilà gars yi moom dañuy fay. vraiment am na solo mm. euh, li nga wax noonu ak mm. précision yi nga joxe. Mm. Euh, wax xam nga seet. aussi affaire yi dafay jafe. Mm-hmm. mais bëri na ñuy nekk ci TikTok bi. yenn sëriñ ay oustaz WhatsApp. di ngañ quoi naan sëriñ yi ak nangam dëppoowul ak diine. waaw nga man côté boobu. même su ma defee émission. parce que ma nekkee si rajo bi sax dañu ma koy laaj. xam nga àdduna ñooñu. lu yàlla wax la ñuy wax man contre a contre lu yàlla wax lu yàlla tudd si téere bi loolu la ñu jàngale loolu la ñu xamale nit gëm moo am nit gëmu ko moo amante man lii ba keroog may def nii wala def ni si suuf moom laay seete man dem ba ba keroog may sangu suñu xar suuf dugub ci biir ma wéete sama loxo day jot moom laay seete waaw parce lu tax triyaanduma kenn fenuma kenn lekkuma alal kenn sant yàlla la ndax maa ngi ci def di dimbali doomu aadama yi maa ngi ci def di dimbali sama bopp maa ngi ci def lu baax defuma ci lu bon garaaw xam nga àdduna moo am solo rek euh, doomu aadama bu ñu day day maandu rek gis yàlla ëllëg safara ajanna mun ngaa julli sax nga dem dugg safara mun ngaa bañ julli nga dem dugg ajanna ajana ajana yàlla safara safara yàlla la wante ñoom lu ñuy xam la ñuy wax lu yàlla wax si téere bi la ñuy wax man bu contre kenn wante man lu ma gëm gëm naa ko xëy na la mu gëm gëm na man lii lii même ay xamante ni jàng alxuraan gën ma xam sax yàlla wax dama leen di si lii dama leen di si lii aduna lu am solo rek mooy lu am solo mooy nit bu ko nax bu ko fenn bu ko dóor man doxuma si dóor doxuma si ay promotion man bu mu juddee la ma yàlla suñu borom defal teraanga suturaal ma te maa ngi sant yàlla keneen nag lu mu gëm allahumma salli ala sayyidina muhammad man li ma gëm allahumma salli ala sayyidina muhammad voilà ku ñëw na ku ñëw na mu seetal ko si petaaw mu seetal si petaaw. bu dee si alxuraan alxuraan bu dee si fëy bu dee si ndox bu dee si loxo bu dee mu xool ko. Hmm. man ma ŋàññi benn bindeef kenn gënu sa ngóob war a ngay jàpp. na la mel. alors <laughs> Kanku Moussa. Ah. est-ce que nit mën na euh, mhm. ne yu bëri xam nañ taxawaay bi nga xam am nga ko. Mhm. que tey am nga kaay yoo xam ne. Mhm. day tax kan fu dugg tëj. Mhm. maanaam nekk ak affaire di xeex ak ñoom wala di kii ak ñoom. xanaa xamu ñaankat diggantaan ñaankat diggantaan laa wax de waxuma kuy dóor ñaankat diggantaan bu ragal yàlla gëmu yàlla xalaat bàmmeelam booy nekkee ñaankat en original pour yow sax sa wér-gu-yaram sax du bëri foo toll da tawat da ngay am ndax lan. tey jii kii ak jinnam ak àndandoom ak rawaanam yow noonu la man noonu la léegi ñu si si yow rawaan bu mu àndal des fois yow mii kii koy ñaanal sa rawaanam moo lay ëpp doole yow mii koo koy ñaanal dégg su fekkee yow amoo looy protéger amoo loo toogaale kooku rawaanam sax mun na mii kii koy ñaanal ma yàqal loolu am na mbaxal rawaan yi ñoo am différence kon loolu su amee yow amoon noo toogee amoon noo defee seen mun na indi gàllankoor ba doo ko xam rawaan dafa rawaan am na solo de. <laughs> rawaan rawaan day porté doomu aadama de. day porté doomu aadama alors euh, très bien mais dañu di bàyyi xel. waaw man kay li ma la rek ñaan bu nit soxla rek. Hmm. mu doon ñaan jàmm rek. Hmm. macha allah kon yow daal mbëri politiciens yi jaaykatu suuf yi euh, ñuy liggéey nekk entreprise yi ñëpp maanaam ku ñëw rek kan ko Moussa Borom jógee. soxla daal bu waaye am rek. bu hmm. waaye am rek xam ne jàmm la. lu lay porté lu lay muccal. lu lay jëmale kanam. mën nañu xaritu parce que man nit su toogee su fekkee lu ñaaw sax mu ko tax a jóg koy xam du ma may su ko ŋaangoon du ko eggal su ŋaangoon parce que ndax liggéey bi ginnaaw yàlla yonent bi ci laa yaakaar wax na la du ma dóor du ma triande du ma fen du ma jël alal jàmbur nit yàgg na ma dama seetaan si média si rajo bi sakar kër Tuuba Serigne sama wax lu ma xas a wax lu ma a macha allah du dégg lu ma la wax lii dina am yaa xam loo bëgg na man doomu tàngal mu munti doon yàlla dama ma ci day am. parce que nag dama dul nekkul nekkul nekk wane wu daal. man soo defee émission nii. mun naa teg un dama génn wala mun naa toog ay six mois sept mois sax dama génn bëgguma def tey suba ginnaaw suba kon loolu du am cafka. su ma defee émission mun naa toog ñaari weer ñetti weer wala weer sax. ba nit ñi bu baax. nga wax dafa jafe. wax. dafa jafe wax yomb na te. <laughs> kon soo bëggee chaque jour nga da def émission chaque jour nga def émission loolu du sax dara mm-hmm. da bàyyi bi nga def nit ñi déglu ko normal mm-hmm. bàyyi si xel normal ñu doog nag xam ci njëriñ bi ak lu dul njëriñ bi nga defaat beneen parce que man après côté koor gii laa defoon benn émission mm-hmm. boobu tamit sama xarit la woon Talla Sylla moom dafa yor site la sama xarit la maa ngi koy nuyu en passant moom it moo tax ma ne tey sama gars yi nekk Thiès nii Sylvie kii nu tudd sax Atou Thiès ah foo ñëw moom tamit ñu xool ma mhm. parce que man dama waa Thiès la mhm. foo ma ñëw seet si ma tamit mhm. ñu waxtaan def émission te aussi du yem si biir nag soo dinañ jóge fi dem ba ba ma ko nag loolu programme parce que bagage jinne yi ñu ngi foofu Mali am na nekk fii wante yeneen yi mu ngi Mali xam nga Kidira Kidira voilà mooy frontière Mali Sénégal yeneen bagage yaa ngi ah, foofu ah. su defee. bii tey jii comme ni ma la wax sànq affaire wàllu mbër. Mm-hmm. wala affaire wàllu comme football. Mm-hmm. wala affaire kéemanti daal nga bëgg ñu samp la rek. bi dafa muy àndal. Mm-hmm. suñ koy samp day ànd ak quarante neuf sondel mu sondel lumière la. sondel. te fàtte sax del faral di taal sondel lañ. sondel. yow dee ko faral di taal yow mii ki mu seetal. Ah, dee ko faral di taal. di si ñaan soxla muy tàkk. Euh, site bi dina dem ba jur ay site site incha allah. incha allah maanaam wax la site bi. dina jur ay site site. ba li ma la sànq li ren. balaa déwén nga gis résultat. yàlla may na ma loolu. man yàgg naa si média nit ñi xam nañu nëbbatuwuma dóoruma digg bi laay jaar balaa déwén site yi dina nekk ay téeméeri site. incha allah wala voilà. en tout rendez-vous bi heure bi man loolu la mel. man lépp lu may wax. Mhm. dama koy def. lu mu dul wax du ko def. Mhm. man noonu la ma yàlla bindee parce que am àdduna. Mhm. dégg mooy lépp. dégg mooy njëkk moo mujj. nit loo munta mel-mel ndomba tànk boo am xam-xam boo am daraja boo am. soo dul wax dëgg rek nit ñi dañ lay jëpp parce que kaddu mooy lépp. kàddu su dëgguwul rek baaxul te yéen su ma nee ne naa ñu def émission mm-hmm. ma jox leen rendez-vous mm-hmm. yéen ngeen waroon dem fenn mm-hmm. ngeen bàyyi ma toog ma ne leen non a damaa amul fekk lépp leeram loolu du ci dëgg mais diggante mën naa yàlla la su ma dee dama koy la suñu borom kon man loolu dama koy ruus quoi du dul du mu dul def oh, am na solo mm. am na solo voilà très bien waxtu bi moom wax nañu mm-hmm. euh, rek ñu bëgg nga wax tey numéro téléphone yi nga xam ne dañ ko bind sax ci mm-hmm. écran bi après euh, képp koo xam ne soxal na la rek mm-hmm. fu euh, bu la moom tamit yàlla def na dafa nelaw fan suñu maam bu baax suñu pap bu baax la woon di jàll Sénégalais yëpp moom it nelaw na fan yi nekkul borom xam-xam bu mag si mbuur moom fii ñëpp xam nañu si yàlla bu jàll voilà tamit ñu koy ñaanal daal yàlla yokk leeram parce que ñu ngi ko denc si jumaa ji fi même ni su buggee ñëw ziare ko mën nga ñëw jumaa ji fi ko parce que moom si jumaa bi ci biir dëkk ko nit ku doon dimbale doomu aadama te yàlla tax ñëpp ko ñàkk moom it borom xam-xam la woon borom yàlla bu soxlee ñun jaam dañuy ñàkk ñu koy jaale te jaale famille bi yëpp ñoom Ibrahima Thierno Daha ñoom Amadou Ka ñëpp ba si ñoom Faat Dia macha allah su defee dina am beneen émission bu ñu def man xam naa ni euh, après màggal bi lay doon. boobu nag côté géej la dem. côté géej mm-hmm. demee côté géej. Mm-hmm. ma wan la fa mbiru mm-hmm. su defee nag di leen jaajëfal. numéro téléphone mën naa bàyyi nga jàllale ñaar que benn bi def na sama jumul 77 la. 318. 05. 41. waaw après beneen bi xam ne tamit dinañ ko affiché. su defee nag. Euh, di jéggul la si kàddu yi parce que wax yombul wax yombul de dégg-dégg tamit yombul su fekkee wax naa fii la xamante ni daal lu teggi newul ah wala la xamante ni waruma ko wax maa ngi tuub di jégalu ñëpp nag ñi may seetaan di déglu parce que ndax lan wax yombul su fekkee tamit aussi tamit lépp jaar na yoon kon sant nañu Mawlana tabaraka taala sant Serigne Babacar Sy fa yàlla ëllëg moo ko nit fa yàlla fii àdduna bi lu waaye mun dimbali moromam lu waaye xam sa morom xamu ko xamal ko lu waaye mun jàppale morom adduna yàggul de mm-hmm. te adduna dafa jeex ba pare mm-hmm. saa du nga dégg dégg saa du nga nekk ñett xëy dem kon yow yàlla mënut a nekki man tey damay liggéey fii mm-hmm. ci laa mu sama ajana ëllëg ci laa mu ne sama safara ëllëg di liggéey lu ne jaamu yàlla la ci nga mën a am ëllëg lay dimbal parce que ëllëg yàlla xol lay fay ak sa liggéey kon yàlla nañu yàlla may lépp lu ñu liggéey mu am barke yàlla fay ñu ko ëllëg kon tamit dee bi suñu dañuy ñaan yàlla mu fekk la mu fekk ñu lu neex suñu borom kon doomu aadama lu ko rek def lu baax wax lu baax adduna yàggul yàggul de te aussi ñun ñëpp benn lañu yàlla yàlla def si réew mi jàmm def si réew mi salaam def si réew mi sutura yokk wërsëg yi faj aajo yi lakk ñu fi yàq eggul kon ñun tamit maa ngi leen sant di leen gërëm te di leen ba beneen yoon incha macha allah jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax Kankou Moussa Borom Djinné ak sëñ Demba Touré nekk fii ci quartier euh, Mbour moo ci Thiès nag wër Sénégal wër àddina euh, am tamit base ci Mali xam naa daañu numéro téléphone yi ak daal di bind. Hmm. bu ko defee ku bëgg a nga euh, ko woowee bu ko defee li xam ne mooy soxla dina mën a am saafara di leen jaajëfal.